lu bëri moo nekk euh, par rapport ak euh, série télévisée yi nga xam ne mu ngi commencé di euh, teg tànkam bu baax fii ci Sénégal yow fu mu toll nii bu ñu sukkandikoo sa kàddu dafa mel ni ko da nga gis ne yooyu les séries dañuy rek yàq li nga xam ne mooy éducation doomu aadama yi fii au niveau du Sénégal. waaw d'abord damay leeral nii. Mm-hmm. contrairement ak yenn mauvaise langue yu ñuy dànkantale loolu. Mm-hmm. ñun duñu directeur de conscience de qui que ce soit. Mm-hmm. du ñu gendarme de la morale ñun Jamra mm-hmm. ay simple talibé lañu qui use de leur droit en tant que consommateur mm-hmm. d'élever la voix chaque fois que mu am des produits de consommation mm-hmm. qui peut faire du mal à la société particulièrement euh, couche couches sociales les les plus vulnérables c'est-à-dire les enfants autant maa ngi ko doon tooñee suñu mbokk asko seen i sax man ne leen yéen autant yéen a ngi def ay jaloore yu mag di ñu protéger ñun les consommateurs. Mm chaque fois bu amee un produit de grande consommation bu ñuy jaay te baaxul ci suñu santé ngeen dem gàttandu ko. Mhm. arrêté ko c' te le cas du fameux riz buffalo bu ñu mélangé frauduleusement avec des cristaux de gel. Mhm. yoo xam ne dafa nekk pepp comme ceeb sew comme ceeb weex comme ceeb. Mhm. en réalité c' est cancérigène ceeb bi da daan sakkan ñu kase prix alors di rey nit ñi ma ne leen ni ngeen demee ba gëstu ko. wax ko ministère de du commerce ñu arrêté ko ñun itam nous estimons que produit de consommation yemul rek ci li ñuy jóge li jóge ci biti jëm suñu biir mm-hmm. les productions audiovisuelles yi dugg ci yóoru xale yi produit de consommation la est infiniment plus pernicieux ndax xale yi mm-hmm. ak tout tànk par définition euh, ci seen euh, premier pas dans la vie lépp lu ñu gis mu yëgee ci yi rek dañ koy jàpp comme argent comptant dañ koy jàpp comme parole biblique u coranique euh, coranique te des fois mu di leen gaañ alors loolu taxoon nag ñii wax naan ñun dañu acharné woon contre maîtresse d'un homme marié on s'acharne contre les séries d'une manière générale dama bëgg ñu doxal seen xel tuuti fàtte xaju fii amoon na fi benn série bu ñu daan wax tur wi rek àtte na boppam confession érotique. Mm. bu doon daw canal canal horizon canal par définition yoonu kenn new ji parce que c'est une chaîne privée payante ku bëggul xool la fa ne bul fay waaye le problème dafa am des heures yu ñu tuddee les heures kii ñu tuddee de diffusion en clair nga xam ne benn plage horaire la bu ñuy may abonné ou pas créneau boobu la ñu tànnoon pour diffuser fa seen musiba boobu mm. xale yi di ko seetaan di gis yu yéeme alors ñun ñu daal di jóg def courtoisie saisir tubaab bi benn tubaab la woon bu fi nekk très arrogant il n'a même pas voulu nous recevoir ah ñu daal di jël li ñu yoon may Abdou Latif Gueye def demande de marche ma yóbbu ko préfecture ñu autorisé ñu ko alors léegi nag le 19 août 2000 ñu def une grande marche pour dénoncer les images obscènes à Canal Horizon surtout les heures de diffusion en clair qui sont gratuites ça a drainé beaucoup de monde au terme de la marche ñu déposé benn mémorandum auprès du ministre de la culture de l'époque Mamadou Diop Decroix et de du président Babacar Kébé président du HCA le Haut Conseil de l'audiovisuel qui est l'ancêtre de l'actuel CNRA alors ñoom bi ñu gisee euh, entre eux le lendemain quand leur verdict est sorti ils nous ont donné raison nañ effectivement ki dëppawul ak suñu valeur et puis c'est dangereux pour les jeunes qui n'ont pas la capacité de faire du discernement ñu daal di arrêté série bi infligé tubaab bi parce que dañ ko jëkkoon wax mu arrêté ko mu bañ ñu infligé ko une fort amende financière loolu l'an 2000 boobu ana ñi di cëppi cëppi ci maîtresse d'un homme marié xanaa boobu am na ñoo xam ne feru ñu nàmp sax ñu ngay nàmp parce que ça fait quand même vingt ans alors notre posture n'a changé képp ku ñu gis parce que ci es financé par des milliardaires nga defe ne lu la neex def ñoom ñuy louer des de des des séquences di jàllale seen publicité nga ne lu ma neex def tu vas nous trouver devant toi mm-hmm. ndax léegi gis ngeen ko ñu ngi utiliser les séries pour détruire nos valeurs et pervertir la jeunesse mmh. sous prétexte que fiction la mais fiction mën nga ci détruire une société parce que à force nga am looy jàllale mooy loolu spécialiste communication yi di wax Euh, nu mu tuddati la la dissémination subliminale de certains messages dans le subconscient maanaam di di am loo xam ne da nga koy jaarale ci kaf di ko jaarale ci kaf mhm. dafay dem ba nekk une normalité pour xale yi je prends le cas de la de la cellule Réewuleen mhm. mu ngi jël mbirum góor jigéen di ko def kaf ci biir série bi ay góor jigéen ñoo joué film bi xale yi di ko seetaan xale yi dinañ dem na <laughs> keke dafay dem ba nekk lu normal ci ñoom ñoom ñu jàpp ne eh waaye Jamra dañuy tànqal nit ñi rek ndekete góor jigéen dara newu ci. c'est ça que nous combattons mais est-ce que aussi monsieur Guèye mënuñ ko analyser aussi euh, sous l'angle de jéem a conscientiser conscientiser nit yi par rapport à ça certes il y a des images qui sont pas adaptées à nos réalités socio-culturelles mais aussi dañu fi jàlle ay messages yoo xam ne pour faire comprendre à la jeunesse aussi ne lii waruñ koo def aussi. est-ce que mënuñ koo jël tamit ci angle boobu. moo tax ñun ñu jàpp ni que les producteurs audiovisuels locaux. doivent être non seulement encouragés mais soutenus. Mhm. parce que am na ci jàmbaar yoo xam ne te état daf leen war a jàppale. dama ci jël benn cas rek c'est pas pour faire de la publicité d'ailleurs génn na àdduna. muy mhm. Cheikh Tidiane Diop bu Daaree Kocc mais kooku production yu mu def yëpp ñëpp ko saluer. mais monde day dox aussi. Hmm? monde day dox day évoluer. waaw monde bi évoluer ba ci prenons le cas góor góor xam nga bi c'est récent. Mhm. la série Góorgóorlu. Eh, waaye ci ngay gis acteur principal bi épisode yëpp benn mbubu bi rek lay sol mooy faxaya boobu mu sol ak caaya bu gàcce bi gàtt bi ak babouchi bés bu ne tem temu épisode bi soxna si eh, eh, kii mu tuddati waaye sën sën mm-hmm. moo koy naan waaw alaaji ana dépense bi waaye xaar ma dem am na boutique ba maa ko yenuloon sàkku ceeb dem ba xaaral ma dem xool mm-hmm. thème yooyu la ñuy jël di ko varier d'une manière ou d'une autre waaye toujours est-il doo ko gis muy fen doo ko gis muy sàcc di jël lu mu moomul waaye daf koy jaral dem di bale ay ay kondiir di déboucher ay cabinet ndax am téeméeri dërëm wala ñaar téeméeri dërëm bu mu ñëw jox kii alors voilà une une série mm-hmm. boo xam ne xale yi dinañ ne waa mais ndekete ñàkk nit mën nga ñàkk ba noppi garder sa dignité donc c'est des séries qui sont porteuses de valeur morale xale bi da mm-hmm. si jëli jom waaye série boo xam ne dafay def la promotion de la fornication de l'adultère di daganal njaaloo mm-hmm. boole kook un langage pornographique ordurier ay sama lii maa ko moom ku ma neex laa koy jox xale yi di ko seetaan jàppee ko kaf daani ah lii ndeke garaaw d'accord c'est là où se le danger moo tax ñoom fi mu ne maîtresse d'un homme marié ils sont en sursi parce que le CNRA bi ñu leen saisiré ne kooru daaw gi récidivé nañu en plein ramadan Mm. ndax bon bu ñu respecté wul nit ñi nañu ormal koor gi ci la leen dóor benn mise en demeure mm. mise en demeure li muy tekki nag laaj leen ko Walfadjri ba ñu fiy jàllale le business di sexe ñu mettre loon en demeure faalewuñu ko mm. ñu fëgg leen alamande de cinq millions te nee nañ leen boo leen ko fayul ARTP dana ñëw couper bi ñoom ci situation boobu la ñu ne alors kon nag série yi encore une fois lu baax la ndax dana yee nit ñi ndax dana jël suñuy réalité suñuy réalité laa wax de waxuma le mimétisme des sous-cultures occidentales def ko euh, scénario daal di ko articuler autour d'une histoire boo xam ne li ci am solo na am une finalité sociale positive mm-hmm. cest à xale yi bu ko seetaanee ba noppi mm-hmm. nañ si jële jom jële ci leçon waaye seetaan série jële ci ñàkk jom ak fen ak valeur yi fi mag ñi bàyyi nga jalgati ko dafa mel ni série réew leen boobu ma lay wax. Mm-hmm. Euh, xale bi yaay ji interpellé ko mu ne ko dafa dafa leen wax mu dugg ci xaw ma mu ne ko yow loo ci lu ci sa yoon yow yaay da nga réewan loolu même bu dee kaf rafetul. Mm-hmm. parce que ils sont en train de di màbbal. Euh, le principe de l'autorité familiale. Mm-hmm. Euh, si maîtresse d'homme marié boobu noonu noonu euh, monsieur Guèye bu ñu si génnee image yi fornication yi ngay wax adultère yeeg yooyu noonu nga xam ne nemmeeku nañ si série bi mais mun ñoo mun nañu wax aussi benn pàcc dafay valoriser aussi la femme africaine gis nga seen tenue yu ñuy sol gis nga carrément mun na ñu wax ne série boobu amul ko xeesal ak truc te tamit dafay wane ne que jigéen mun na dem aussi sans góor côté boobu aussi mun nañoo applaudir. gis nga li wax nii. <laughs> je l'ai da nga mel ni ku écrit textuellement à Massamba Ndour le patron de Marodi TV je l'ai textuellement à Khadija Si parce que ñoom ñaar ñoo àndoon ils m'ont fait l'amitié d'une visite ma ne leen nous n'avons rien contre ma ne ko la preuve euh, ma daal di jëlaat exemple Cheikh Tidiane Diop ma ne leen moom dafa inspiré woon ci benn long métrage bu ñuy wax Bax avec comme thème principal les dégâts de la drogue mmh. dans différents secteurs sociaux mais il a eu la courtoisie parce que xamu ci lu bari ñëw ci ñi nga xam ne pendant vingt ans ñu ngi ko doon xeex muy Jamra mm-hmm. ma daal di ànd ak Abdou Latif ñu dem seeti ko fii ci Médina. Tirelu mm-hmm. 11 mu génn scénario bi jox ñu. il n'était pas obligé de le faire. Mm-hmm. waaye dafa ñu solliciter rek ne ngeen ngeen jox ma seen xalaat ndax mel na xel dayul mais bañ ko liree on a fait des observations. Mm-hmm. ne nañ ko ah lii kat kii toog ci booru géej gi di tux yàmba di fëgg dënnam di am bàkk bu muy bàkk di tagg yàmba bi xam naa ne jubluwuloo ci loolu waaye mën na pousser certains jeunes à aller mu mu dindi sequence boobu noonu daal lañ ko toppee bu mu jeex la preuve nag bi mu tourné film ba ñu jàllale ko RTS ba épisode yëpp jàll xaw ma onze épisode ou mais on a eu une réaction euh, de de de, la population particulièrement jeune émouvante. Mm -hmm. cest am na ay jeunes yu ñëw euh, Jamra kenn ki ne Latif man de du ma ba ne dama daan tox yamba léegi je suis même allé plus loin ndax damay jëfandikoo héroïne. Mm-hmm. je suis accro te lii dal acteur principal bi nan vraiment man bëgguma ko parce que il était bien courtois et cetera daje grand xaa mu dugal ko ci mbirum drogue euh, jikko ji yàqu. bu jabar ji waxee mu saaga ko ça ça aussi ce sont des leçons de morale yoo xam ne euh, série yi mun ko wane si aspect euh, négatif